ban ban ban ban ban ban kii la euh, su ko defee ñu bàyyi la séeréer bi sax buy làkk buy làkk buy làkk wolof da ngay gis baat bi maanaam jëmmi jëmmi la langue bi mhm. ni muy dese accent bi français laa ko mën a utiliser ah, ah, ni muy ah. ci wolof bi dee pël bi itam gis nga ko buñ koy toppandoo gis nga naar bi itam noonu olof rek mooy wax dara nga ne du olof am na olof muñ làkkee tubaab sax nga ne mosuñoo jaar ci làkk wolof euh, sëñ Ablaye Diop jërëjëf jërëjëf sëñ am di rafetlu borom xam-xam yi liñ fi indi Euh, dafay euh, wane rek ay tolluwaay yoo xam ci professeur Diaw ak euh, Diop Bichri dafa mel ni wolof dafa baaxoo li ñuy wax tradition orale arabe ak nasaraan yi li ñuy tradition écrite jeego bi sëñ Moussa Ka Mor Kayre sëñ May Cheikh Samba Euh, jéego bi mag bi ñu def mooy c'est-à-dire dañoo xëcc wolof jëmale ko ci tradition écrite ci mbind mhm. dañoo xëcc wolof ne woon ci tradition orale xëcc ko jëmale ko ci tradition écrite muy lu am solo mhm. ndax euh, ni ñu waxee euh, ayuma nag ci ay grammaire ay aruud li may dégg sëñ Abdoulaye Diop sama sëriñ di ko wax ay aruud ak yooyu dafa mel ni peegoon nañ ko peeg goo xam ne mhm. nin koy nin koy indee ci wolof Euh, yéem na yéem na ku waaye li ñuy duggeek euh, professeur yi mooy bi ñu dégloo mag ñi way yi ñu way euh, ñu war a nag analyser way yi ñu way muy sëñ Moussa muy sëñ Cheikh Samba Diarra Mbaye muy sëñ moor Kayre ak ñoom ñëpp ku ci ne li nga way tey buñ doon jàngat wala ñuy analyser taxawaay yi ñu am way yi jëmmi way yi euh, buñ doon xool taxawaay wi ci wàllu spiritualité ci wàllu ngëm rawatina ci wàllu tasawuf buñ doon xool euh, taxawaay wi ci wàllu taar ci wàllu esthétique comme ni ko sëñ usmaan indee maanaam daaneel yi foo xam ne bu ñuy daaneel koo ñuy wax ak yeneen baat yoo xam ne dafay dafay dafay leer ci daaneel gi Euh, mu mel ni euh, dimension yi way yi am euh, dimension yooyu laa bëggoon suñu ñaari professeurs yi ñëw ci c'est-à-dire way yi nga xam ne nii kilifa yooyu way nañ ko ban taxawaay lañu am ci wàllu diine rawatina ci ci wàllu yoonu soufisme bi nga xam ne nii ñëpp jàpp nañ ne mooy mooy daluwaay gi gën a gi gën a wóor ci ci jullit bi professeur Diaw jërëjëf sëñ bi eh, noonu nga eh, waxe léegi day wone ne sunu làkk yi mag ñi dañoo tontu tubaab bi ginnaaw tubaab dafa ñëw ne yéen li ngeen di wax du ay làkk ndax làkk dañu koy bind te booba da leen réere rek waaye ñoom ñoo ko fi jiitu ndax eh, mag ñi mbind mi ñu bind te jële ko ci yaxu arab moo jiitu mbindam tubaab fii ci réew mi ndax mën nañ ne yaxu arab ginnaaw bi lislaam ñëwee Sénégal ñu tàmbalee jàng téere bu tedd bi di alxuraan yax bi ci boppam la mag ñi daal di jël rek di ci bind seeni mbir ci lañ doon bind seeni bataaxal diggante nit ak nit ci lañ doon bind seeni seen histoire ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak seeni denc ak lépp kon tubaab bi moom won nañ ko ne ko lii ngay wax taxawul ndax làkk wi bind nañ ko dañ koo bind nag ci li ñu man muy yaxu arab ci lañ ko def nga xam ne kon ñoom mbind mi ñu bind dafa dal di taxañ yoonu tasawuf ndax dañu ci daldi xamal lu bare bare bare bari boo jàngee euh, naa jéema buurati mm-hmm. bu sëñ Musaa dinga ci dégg yoo xam ne yi taw tawhid la wéetal yàlla suñu borom la ah boo boo boo jëlee boo jëlee sëñ Jaxate ak sëñ Mor Kayre ku ci nekk jaare nañu jël nañu làkk wi dugal ko ci waxtaan yi ba mu dugg ci xolu nit ñi sëñ Mor Kayre maa ngi jàpp bayit boo xam ne bi ma doonee xale Euh, laa dégg sama sama waajur wu tedd daa ko sama baay naan ñu bu ngeen sóobu bu leen mooy yoon mhm. te wut ku fa xam ngeen ànd ak moom bu leen ko fàtte yóbbulu leen ku yóbbulu du ñeetaane xam nga loolu boo ko seetee rek mooy lépp ci àdduna mhm. bu ngeen bu leen mooy yoon te wut ku fa xam ngeen ànd ak moom Mm-hmm. bu leen ko fàttee yóbbul leen ku yóbbulu kat du ñeetaane euh, loolu tënk na yoon tasawu fépp mu ngi ci biir ni ko sëñ Abdul Ahad Ka waxee léegi euh, table de multiplication ni ci nit ñi daan daj bu sëñ Moussa ñëwee indi lu lu neex lii nga wax ko gone gi mu dugg ci boppam léegi léegi. Mm-hmm. nga yónneek ko ca jaba mu dem lijjanti dellu siwaat mais kooku moo raw problème bu ñu la jox. nan la ba sa ay demee jënd nangam nii ci tuwaab yoo xam ne yi day metti ci yow. waaw dalay koy daal di jàngal léegi mu yomb ci yow. Mm-hmm. kon nag làkk yi taxaw nañu taxawaayu yombal nu lu jafe woon. Mm-hmm. fa nit daan dem. di liggéeyal ab sëriñ ay ay ati at ngir jël fa benn mbóot ñoom ci ci biir benn ben benn benn benn bayit ñaari bayit war nañ la fi nga war a jaar ngir am loolu mhm. wane la itam ni nga war a sa diine mhm. ba ci am njàpp ak sangu ceet lépp def nañ ko ci ay way yu neex a neex yoo xam ne yi da nga koy daal di mokkal te doo jaar ci arab mhm. ndax nañ ko fàttali itam nag diine ju arab mhm. arab nag moom la ku tedd ki yonent bi di ngeen gi mbindéef moom la wax moom la nit ñi gis moom la nit ñi dégg waaye euh, diine ji mën nga koo xam te doo jaar ci ay arab mhm. waaw foofu daal lañ bëggoon ne ngeen kon euh, jërëjëf <laughs> sëñ Ablaye dégg nga dimension bi mu indi dimension technique bi nga xam ne nii euh, mag ñi ñu doon tudd léegi indi nañ ko ci ci seeni ci seeni poème euh, ndax ku ci mel ni ku ñuy wax sëñ Mor Kayre dama lay jox bayiti rek nga wax ñu taxawaay dimension yi nga xam ne nii am nañ ko ndax nee na euh, murit del takkoo seex bu matte bu xam bu lay laaye biir te buy sellal jëmmam jëfam bu xam peey ba xaw soog rijaal yay daje bu ràññee charia ak xaqiiqa ak jëmmam te xam kay borom pey ba xam yonen mm-hmm. kon euh, ñoom wax nañoo murit wax nañu juliti mm-hmm. waye li ci ëpp solo moy mm-hmm. le sëriñ ba daan jangale ci téré xam-xamam ya mm-hmm. Sotil nañ ko euh, li ñi may wax le ba peuple ñi nga xam ni euh, joté wuñu won fofu ngir mëna ñongal sen tay ak sen ëlëk dimanche jërëjëf nu ngi sante bu baax mbokk yi addu yépp di am telol, lool ci kaddu yin fi dégg lépp mu di santar sunu mag ñi xamni da nga ciy gën a yéemoo ci sëñ Touba gën a waaroo ci sëriñ bi sëriñ Mbay Jaxate radiyallahu anhu sëriñ Mamar Kayre sëñ Mamar Kayre ci mag tout à fait euh, Seex Sàmba Jaara Mbay sax ci mag mhm. ndax 1869 la gane àdduna mhm. mhm. génération boobu topp ci sëñ Mamar Kayre 1872 wala 13 génn àdduna 1951 51 topp ci Serigne Baye Jaxate 1875 la feeñ. génn àdduna 1948. 48 semaines. topp ca nag sëñ Moussa Ka ñëw moom ca diggante 1892 wala 13 génn àdduna 1967. Mhm. kon soo xoolee ñoom ci seen dund. Mhm. ñoom ñëpp dañoo dund ak Serigne Touba naa bu yàgg. xam ci moom am ndigali. Mhm. bokkuñu nag ay istili wayin bu dee Serigne Momar Kayre li mu gën a mën. mooy tontul yoonu murit bu ko attaqué. Mhm. bari woon na lool ci ay wooyam ba ci wolof màggal gi. Mhm. bind na ci boo xam ni ñiy wax ni màggal gi binaa la ñoom lay tontu. Mhm. di wax ni bu fekkee binaa la lu ñu sos la ginnaaw yanant bi kon na ngeen def tamit alquran muy binaa ndax yooyu yëpp dañ koo bindaat ci ginnaaw yanant bi lañ ko bind. di fa tontu tontu yu tege ci xam-xam. wooye mit bëri na lu mu woy sëriñ Modou Moustapha borom Taïf ndax dafa nekkoon sëriñam. bari na lu mu woy sëriñ Seex Mbàkke Gaynde Fatma bari na tam ñi mu bokkal jamono lu mu leen ndokkeel sëñ bi wax na ko léegi ku ne mu woy la ñoom ñoom dañoo defar woon bu dee Seex Sàmba Jaara Mbay tagg la man tagg lool bu taggee da nga pour nga décortiquer waxam sax day xóot lool waaye lépp mu koy delloo ci sant yàlla ci bi mu ko dajalee kii nga xam ne mooy boroom jamonoom di sëriñ Tuuba di def nag woote bu dal boo demee ca jazbul majzub mhm. dégg nga muy wax ni mboolem xaddam laa di woo mhm. boolee ki xalaaji laa di woo boolee ki seex ku ma ci woo na ni labbayka mbaa na am mhm. di leen yëgal ki ma fi gis fu ma fi gis ku ko fi gis te àndul ak moom ku mu fi gis gënu fi mbaa saful xorom na ngeen ma laaj ku ma fi gis sangub jamono laa fi gis na ñépp àndee ki ma gis bu kenn déggulu turam seexu siyooxi ahmada ki lee fi tegtal ahmada daa fi tagg muhammada mu tàbbal ko biir këram yenn saa yit ci wooyam muy sant sëriñ Touba ci fi mu jaar ak moom ndax gis ngeen daa daan toog ci ndar ci pont bi di jàng alxuraan am ci alkaati bu ko tere loolu fekk ko ci fi mu toog di jàng mu jël sërëm ni ko da ngay jóge fii ba mu ko kalaamee Serigne Touba fan yu néew la ñu def alkaati bi ci boppam daanu ci dexu ndar gi ndax ci biir woy woowu jës bul maj soob da ngay dégg mu naan lu may lëjël mu ne ko cas sànni ba dootuma ko gis wala mu labal ko mu ni mes kii ma gisee la ma taxam wala cheikh samba jarat dina woyé ci tag lool la man budé serigne sëriñ jaxaté yaré yarekat la Sering coba yi bu radiyallahu anhu moom serigne toba dafa wax ni bala ma gëm ni kenn ëpp na serigne babakar jaxaté mbir bis pinch. dafa jott ma ci sama bëtt ma door ko nangu dem na ba serigne modou mustapha bëgg gi mu bëggante won ak mom ci kaw jëmmam ci la wàcce liggéey serigne bay jaxaté ko fop bi mi liggéey 45.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 Mm-hmm. Ya yew ya, ya mana yew sgor si gor ba dootu fa jóg teraanga ngay yewé asgor pinti pantangama mm-hmm. ya ma fapndamal fab ndamal penko ak wa sowu jox moma jël penko ki sowo nge may ñe war nga togg nga ma Ya tedd ya ma telal ya japp ya ma jafal Ya muccu ya ma musul jaaraame seddi nga ma mm-hmm. ya, yow aayowoo ma sa kay gi yàlla ya, boo gisu ay ci kay gi yalla nga yagu pal falale nga ma la dina defar xolu doomu adama ci tasuf go nga dug amna am na xol la ko jaglel day wax ak jullit bu mu mën a doon rek. mu ni jàppal sa xol bii defar. Mhm. ngir xol bi moo di sa kër. defar sa kër bàyyi sab xol moo lu muy xala faj. sa kër lu jag te sab xol tax ripp lu bon du tax nga gën kat fa yàlla mbaa mi ngonka ki xaj. Mhm. defar sa ba sa xor bi ler-leree ka melax moo gën di wut néeg a kiy sàkket yu fatt taraj. ña dëkke woon taaxi kaw jëf lu bon ñi ngi tey ci sëg yi ñuy yar foo doolu dégg faraj. Mhm. sa kër lu jag-jag. buru guy rot nga génn ko dem yow rek kenn du la toppit mel na xel du ko daj waaw wooy lay waxal yenn saa mu fàttali ñëpp di mu fàttali lu ñëpp di fàtte mhm. te bi ni ku koy fàttali ko ñaar fukki yoon ci bi sooy dekki dekkaaleeg soo daaw yi martir yi mhm. muy dee fàttee ka bon fàtte dee rek kay waral nit a bu dul ko nag fàtte dee kenn dootu reew ak a beew bu dul ko nag fàtte dee kenn dootu am lu ko saf kenn dootu am lu ko soofit dee waral ku ne sew ko xamni ni ni de ngi ñew te faawu mu ñew ne nem rek kala war tay jema daw yëfi ndaw tuubuk mooy ak yaru mo war kep ko meuna gis de gaa ngi dàqe te day jot ñep kenn du ko raw lo wir wérit wopp bis lo tedd tedd torox lo meun meuni tele bis lo wax waxit ne selaw mhm. bu fekke suñu classe politique yi pouvoir bo am wax na ak yow señ bay jaxat bu dee pouvoir bo am wax na ak yow mhm. neena na bëgg na la fop waye yow na nga bañ Mm-hmm. lu fab fabit na nga fab say tànk teg ko fi suuf mm-hmm. jekkil te riigu fi suufu si yàlla si bu fi jug mm-hmm. loo jëm-jëmit kaw da ngay delloo ci dong fi suuf lalub gettax ak lalub weñ ak lalub tagar ak lalub sëlën boo ci tëddeet wàcc dellu fi suuf mbaam ak gëléem ak fëfal naaw ak wataaki ngelaw loo ciy warit du la tee xëy bis di céngi fi suuf néegu ñax ak mbaaru seng ak taaxi suuf ak i kaw loo yàgg-yàgg ci ñoom it génn dugg fi suuf cerey lay ak wata boor ak ndapp ndiir ku sëb mbuuma kum coxafaf yem bis ba ngay gane suuf jëlub lingeer ak jëlub jam ak jëlub xajayem lo mën jël jël du tédé jël la denk la suuf mhm. ba doola ak buur dak ño xala lu yag yag dañuy bolo ni mengi fi suuf sëriñ si nga xamni yépp tém d'actualité la mhm. ñu ngi leen di top ta yalla tax ñu baña wax talibé yi dëgg mhm. war leen a ci jaamu yalla ak njub ñu ànd ak ay doomi jambur war leen tek ci yoon di leen wan kese waxna ak ñom deug la nee na ko yàlla dénk mbooloo mu doy ñu di la gontal ak xëy loo leen digal kenn du ko mooy war ngaa jubal te bañ a mooy te war nga leen a gindi ñoom ba ñu aw siraatal mustaqim te fexe ba nu jaamu xaddiim bu wér wér te waya way mbaa lu ko mooy yommal xiyaam daañu la war ni jëggi mbaam poñe la naa la xàq jaam ña nga yoroon joxe ko tey ngay jéem a daw doo mën a daw mbooloo mu mépp a nga la gaw xawma ci yow lu may taxaw jéem muñ gàcce gu rëy sëñ mbay Mbaye la mën naa ci tari téeméeri wayu bokkul sëñ Moussa waaye dama ni rek ci gàttal waaw sëriñ Mbaye lu nekk wax na ko ci éducation ak ci yar doomu aadama te loolu war nañu ko jàngale ci école bi sëriñ Moussa Ka mhm. di phénomène sëriñ Touba dama laa wax ni sëñ Mbaye Jaxate mhm. yarekat la day defar nit di la tàggat mhm. sëñ Abdoulahat moo waxoon ni waxi sëñ Mbaye Jaxate ginnaaw gu nekk lay dal kilifa dina toll foo xam ni kenn du la wax dëgg su boobaa dee déglul sa bopp dëgg waxi sëñ Mbaye dëgg la kon defar nit ba nga nekk nit ku nitee ci société def la jullit akkan murit saadix lii la sëñ Mbay Jaxate def loo xam ni euh, yàlla ko jagle jërëjëf sëriñ Mamar Kayre wax naa la ko mhm. avocat la wootekat la mhm. màggal gi woote na ci liggéey jumaa ji woote na ci mhm. taggekat la moom it Seex Sàmba Jaara Mbay tagg la man ak bàkk sëriñ Tuubaa wan jaam ñépp ni ci kenn du moom sëñ Musaa Ka di seen résumé moy seigne Moussa Ka mënoo ko teg fenn loolu seigne Abdou Ka wax léegi su la neexee nga ni avocat la mm-hmm. ndax dina layool yoonu murit euh, euh, bu ñu xoolee les années 30 mm-hmm. crise des années 30 waaw bi muy woy xarnu bi mm-hmm. siècle bi bu fekkoon lépp yàqu lépp lëndëm nit ñi ñàkk pauvre ñëpp di jooy mu xam ni sëñ Tuubaa ko def làmmeñu yoon wi mu ni ñokket di plaider daa di wax ni Sering bi noongi deti ñaan faqir da fay nango dagan nangul lu lepp lu la ñaan mhm. ngir yalla natal xarnu bi noongi dagan ca mustafa mhm. ma nek marwata ak Safa ak haqi amdil mustafa mi yalla jibal xarnu bi ak mbollem ay rakam ak seen ba ya ñu am ak àqi mhm. sheikh yi bamba am ndax yalla natal xarnu bi mbollem murid yépp ngi tuup tey réccu bàkkaar yi ñu juup ba lu nu bay bay du nu gop sering, bi gesul xarnu bi mbake da ngay boroomi mbóot te tawat gi lot ñu def ma interprète comme nekene moy interprète yoon interprète yoon wi may làppatoo waa xarnu bi mhm. aw ma maqamam di la woo waaye murit yi ñoo ni tawatal te bu nu wo saw làmmeña yu xarnu bi tay ji ma wax bani taret tareet ngir ya ma def interprète ya fa bi xam-xam ni yereet ki sama xel ci xarnu bi te bul ma tankam lu ci ñaan ngir lima ma bon tay ko ñaan murit yeb la ko ñaan ngir bëgg a dekkal xarnu bi mhm. kon dina tok sol euh, mantu mhm. intercesseur la daal. waa intercesseur di ràmm ñëpp ràmm mhm. loolu bokk na ci waxi sëñ Moussa Ka li xam la résumé la ñëpp. tout à fait maanaam dafa jël ci source sëñ Moussa Ka dina waar ba waaraale boppam moom moom miy diglee lu baax mu ngi koy digal boppam. Mhm. am na wooyum naan. Euh, da ngaa jooy ba noppeem da ngay jooy ki xol. Mhm. da ngaa di seetu rongo añ da ngaa far wedam te bul mel ni sondeel ki leeral ñoñam ba ñuy xor xoral nag nga lakkul wëñam. foofa boppam lay waxal. yenn saa it mu nekk kéemaan boo xam ni day wax ak boppam moom. Mhm. di ko fàttali waratoo toog benn seconde joxoo ko sëñ Touba. Mhm. waa ji Moussa bul fàtte waa ji fa Touba moo la tee faatu moo la tee yalwaani gis nga cant googu. di dem ba ca biir mu lay wax nag cëru ko ne sëñ Moussa Ka koo xam cëru ko ne. Mhm. yaa duyal maam Cerno Ibra Faati ci say may. yaa ko jiital muy xutbu fii diwaani. yaa defal Seex Anta barke bu dul deñ may ko daaru salaam ak gaawaani. yaa defar Cheikh Ahmadou Ibnu Saïdine sëñ Mandumbe mhm. ngëm gu ànd ak dëggal ba am ritwaani mhm. yaa defal maam Cheikh Ibra Fall làmp bu dul fay mhm. wan ko yoon wa jëm ca dex gamu naane joxoñ ko ni ko yaa yaa yaa saxal Cheikh Abdou Daaru Alimin sëñ Daam Abdourahman boobu jox ko mbootum kuy jàng fil Quraani ni ko man mi yaa ma ubbi yaa ma ubbi may ma fàttu ba may woy yaa ma teree yenu mbëlka tey sàmmaani kon foofa sant la sant la yenn saa yi mu woyal la sëñ Tuubaa woyin woo xam ni kenn mësu ko dégg xoolal ci baatu boroomam ni mu kennal sëñ Touba. Mhm. li nit ñi tey ji di bañ mooy kennal sëñ mu Ka bokk na ci dàq kennal sëñ Touba muy ci boroomam. Mhm. di la wax ay jikkoom melooy bàmbaa ngi waa ju xamul na déglu te roy roy luy jikkoom moo xam boroomam day jox aji laaj di dimbali ay dëkkaaleem du tooñ ca ku tooñ mu jéggal ngir boroomam. Mhm. day may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal safoo ku ko soof. ku dul kuy mooy boroomam. day faj aajoo ki xam lay mbóot mhm. di génne ruu ci tuskare jox boromam mhm. day fekk ku ñëpp xeeboon ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko mook boroomam day fekk ku mel ni man jàngul liggéeyul mu seexal ko sol ko xam-xam ciy boromam foofa mhm. da lay indil sëriñ bi sëñ Moussa Ka woy na mboolem turux yi ci senegal seeni kilifa diine loolu di lu yéeme ndax dina la jaaxal ni sëñ Tuubaa bari bind ni la baree bind da nga naan lii ci at yi mu dund nan la mën a tooge di bind lii defal na Baye Ñas téere wooy na sëñ Ababacar mhm. wooy na si alaaji Malick alaaji ba mu wa jógee Màkka ndokkel na ko wooy na ko Seydina Limaam waaw wooy na Seydina Issa Ruhula 1949 bi mu wàccee liggéey mhm. Mhm. ci ndigalu sëñ Fall wooy na seex yoonu murit yëpp maam Seex Ibra Fall def xam naa ci ñaari téere man benn baa di àddina ndax yu bëgg jeex bi mu wàccee liggéey 30 ba ca des moo ni maam Seex Ibra Fall may wax may bind lan di murit saadix way na maam Thierno téere boo xam ne barki démb marché lañ koy def war koo génne mhm. barki démb maa def publicité bi téere bu la way maam Thierno dundam gépp way na sëriñ Balla Faali Jeng ci seex yi mhm. way na sëriñ Abdourahmana sëñ daam Abdourahman Lo way na mën sëriñ Mëndumbe Xabbaan way na sëriñ Balla Coro way na sëñ Seex Coro kon mag mu ne woon sëñ Tuubaa defal na la téere dëgg la ba ci am ba maam Cheikh Anta ñaari téere sax moom. dëgg la dëgg la kon léegi sëñ Moussa Ka mhm. phénomène la. Mhm. ba pare woy it fu mu ko fekk mën na caa woy ndax ndimbalu sëñ Tuubaa la am. Mhm. woy wii ñu doon wax léegi te sëñ bi jukki ci ay bayit séet doo nga ko romb séet bu ñuy yóbbu. mu tëgg ci woy mu tëgg ci woy jigéen ñee jiital seen séet ni ku ànd ak ki ñu àndal lu la neex laaj. mu gestu ni leen sëriñ bee jara àndal bu leen njóoj njaaj. na ngeen déllu ma fent ma dellooti fent ab daaj. Mhm. ba zahir sa di baatin jullee ko maaj damay wëlbati mbooleem wayi ni daan ba feem yépp di baatin bu jar di seetaan damaa romb ko ciital mu naan ma kaay laaj mhm. ku jiital ki ma jiital la neex laaj ma seet mbir ma mu jiital jarul ay ngaañ mhm. ma faf tub ñu ko tuubal malaaka day gaañ te ànd ki ma àndal nu dem ba Touba faral gébbalu moo gën torox su boobaa kon sëñ Moussa Ka daal dimension yi waa moom bari na dimension yëpp nga mën a fekk ci jëmam waaw sëñ Touba waxoon na ci moom 1927 bi muy fatu mhm. sëñ Mbàkke Diouf la ko wax na ngeen seere ni sama làmmeñ jox naa ko sëñ Moussa Ka moo tax sëñ Moussa Ka nekkoon miracle di kéemaan mhm. waaye tamit mu fonkoon kilifaam yi ci yoonu murit tout à fait sëriñ Bay Jaxate ci wooyam da ci feeñ ni mu ko bëggee woon mhm. boo demee ca wasiitu niswaan da koy tudd lu bari tout à fait di indiwaat ay wooyam ndax moom xamoon na ni mooy synthèse yoonu murit moo war a taxawal kilifa yëpp dañ ko jox relève mu war koo àggale borom baatin la woon tam di gis lu ñëwagul di ci way mhm. yooyu yëpp temps bi moo ñu ko dul may dimension la jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, kon am mhm. euh, li ñuy jàngatee ci loolu rek mooy way euh, am na taxawaay bu am solo ci soufisme te mag ñii wane nañ ko waaye wane nañu tamit engagement bi nga xam ne nii amoon nañ ko seen digg ak cheikhul xadim cheikh ahmad bamba xadim rasoul loolu war nañ ko jànge ci ci mag ñooñee ñëpp nga xam ne nii tudd nañ leen ci ci ci ci jataay bi kon euh, principe yi nga xam ne nii moo tënk wàllu soufisme ñoom jàngale nañ ko engagement bi taalibe war a am ci diggeeg sëriñam jàngale nañ ko engagement bi euh, nit ki war a am ci société jariñ société ba orienté leen taxawaay boobu euh, am nañ ko waaye tamit taxawal nañu der bu ñuul taxawal nañu nit ku ñuul taxawal nañu wolof ndax ci seeni baat fu ñu waxee wolof mën na am làkk wi la waaye am na foo xam ne fu ñu waxee wolof der wu ñuul wi la ñuy wax kon ci wàllu euh, négritude sax ñi naan ñi ko fi mujjee indi mag ñi dafa mel ni taxawaay wi ñu am ci fànn boobu ci ci dëgëral deru nit ku ñuul doon na lu am solo loo xam ne jàngat nañ ko ci li nga xam ne nii moom la euh, moom la moom la kilifa yi wax waaye tamit di euh, di saxal sunu borom ci ci xolu doomu aadama yi ci xolu murit ndax way yeeg kàllaama yeeg daaneel yëpp daf lay delloo ci suukar muy sant sa borom waaye tamit delloo la ci ak zikr di ko tudd ndax it moom rek moo ñu sàkk kon jàngat yooyu dimension yooyu nga xam ne nii mag ñooñu am nañ ko war nañ ko war nañ ko yeesalaat euh, jàngal ko génération yi nga xam ne nii ñoo fi ne rawatina sama classe yi nga xam ne euh, euh, français rek la ñuy wax muy kon euh, lu am solo loo xam ne war nañ ko jàngatee ci jëmm yooyu nga xam ne mm-hmm. ay ay référence lañu euh, ay nattukaay lañu euh, ci lépp loo xam ne nii war na doxal askan war na doxal réew war na doxal société sëñ am Diop. jërëjëf sëñ Ablaye Diop ndongal ndongo yi jërëjëf sëñ professeur Diaw Faye jërëjëf sëñ Ablaye Diop Bichri ci leeral yi nga xam ne ni indi nañ ko ci kon sëñ Ousmane. Mm-hmm. Euh, yaakaar naa ne dinaa la bàyyi nga def benn kii balaa ñuy ñëwaat ci euh, Serigne euh, Cheikh Fall Kayré yaakaar naa ne kon waxtaan wi ñaari làcc la ñi ay professeur lañ yoo xam ne ñëw nañ ci jëmmi làkk bi mhm. nga xam ne tubaab yi dañu ñëwoon ngir dindi li ne ci ñun am leneen lu indi moo mel ni waaye loolu li seen Cheikh Abdou Lahad Ka wax am na benn xeex boo xam xeexu culture la xeexu aadala ak cosaan mhm. sëriñ bi xeexoon na ko yaakaar naa ne inni ujaahidu bi loxoloo mi sax boo xoolee mi gi maanaam mën naa ñëwaat ba ci xam sa bopp ak xam cosaan sa cosaan ak xam li nga doon léegi nag xam li nga doon dara jiituwu ci ne lakk bii nga xam ne ni tey mën nga koo jëfandikoo mel ni tey réew mi boo doon jël euh, soose wala mandinka wala joolaa wala lu mën a doon boo demee ci sous région bi bari nañ fi lool waaye ba tey dangay ngay jàpp ne olof rek moo nekk ca mooy nekk ca ca ca kanam euh, mu nekk loo xam ne nii euh, barke dafa mel daf ci dugg ci biir ci biir làkk wi euh, mu nekk loo xam lu doy kéemaan bàyyi la nga def ci benn benn benn benn benn jàngat balaa ñuy ñëwaat ci sëriñ Kayré eh, ci Serigne Mor Kayré. jërëjëf eh, xam naa ne njàngat mi sax du soli ndax borom xam-xam yi dèjà liñ fi jot a génne eh, lu am solo la wante man li ma ci bëggoon a yokk rek mooy aspect pédagogique boo ñoom bi ñu amoon. Mhm. maanaam taxawaayu njànglin mi. ci biir njànglin mi. am na ñu taxawaay boo xam ne nii euh, taxawaay bu am solo la ba li nga xam ne nii wala ñi ñu jàkkaarlool wala ñi ñu bëgg message bi jàll ci ñoom euh, ñu daal di koy ñu daal di koy euh, capté parce que nag su fekkente ne yaa ngi def communication ki nga xam ne nii moom nga jàkkaarlool nga bëgg ko li nga li ngay yëkkati mu mu xam ko wala mu téye ko am na foo koy jaarale ñoom nag ñu amoon ni bi ñu déggee boroom xam-xam yi xam-xam yi li ñu wax ñu amoon benn taxawaay pédagogique bu ñu taxawoon maanaam euh, ci seen làkk ci gëm seen bopp wante tamit euh, bëgg beddi li fi tubaab bi indi woon ngir que mu li nga xam ne nii moom mooy euh, yoon wi ñu xamle ko wante xamle ko ci communication bu leer boo xam ne nii ëllëg ki si biir kenn ku nekk dina ci mën a jaaraat ndax ci sa làkk lañ ko indee su fekkonte ne tey dañ ko woyoon ci arab wala ñu woyoon ko ci ci ci ci ci beneen làkk mun na am moo indi ay jafe-jafe wante ay la yéwén ci wolof lañ ko indee te fi jamono ji ñu toll wala boog ci suñu réew mi ñu nekk gis nañ ne tamit langue yi nga xam ne ni codifié nañ leen muy juróom-ñaar wala bu juróom-ñett mm. wolof moom moo ci ëpp Mm-hmm. moom moo ci jiitu moom lañ ci njëkk a jël mu ñu defoon ko tamit langue nationale xam nga kon loolu tamit am na solo su fekkonte ne mag ñi liggéeyuñu woon loolu mm-hmm. tey du ñu dem ba euh, suñu réew mi langue nationale ñu jël ko muy wolof mm-hmm. wante tamit pourcentage bi nga xam ne nii moom euh, langue yi ñu codifié yëpp euh, yi yi ñu yi ñu jàngat gis nañ ne wolof bi tamit moom moo ëpp pourcentage boo xam ne nii moom moo moom moom moom loom lañ jël dëgg am di jóg jërëjëf sëñ Ousmane euh, muy jàngat bu am solo sëñ Cheikh Fall yaakaar naa ne euh, fi nga xam ne nii fa la kilifa yi jaar euh, nekk na nekk na nekk na lu am solo tey damay faral di wax ne ñoom dañu am ay wàccuwaay yu rëy yu romb fii ñu leen teg tey ndax dafa jéggi sax yoonu murit kese ñëpp leen war a jëfandikoo ndax tax ñëpp war leen jëfandikoo mooy ni ko professeur Dia waxee léegi ci sëñ Mor Kayre xam nga moment bi ñuy jàng ñoom ñu jàngal leen baydi mu mokkal ko ba tey mu koy orienté maanaam mu am mu di ko mu ko gën a jubal ci ak njub di leen gën a jubal ci eh, maanaam eh, seen bopp ci luñ moomul wala ci loo xam ne ni seen yoon nekku ca te loolu be wenn wenn bay rek la ci nga xool li ñu way tey boo xoolee boo demee tubaa saalum eh, boo demee Saloum ku si ni Sëñ Wanaar nga xam ne Eh, bi mu jébaloo ci sëñ tubaa li mu woon wooy yëpp da ko mujj soppi wolof nga xam ne def na ci ay bayit yoo xam ne ni mat junni junni junni junni mhm. te loolu lépp mu def ko ci ci ci sëriñ bi mu mel ni kon sëriñ bi daana ci digal tey nga jël ku mel ni sëñ Moussa Ka yoonu géej gi ginnaaw boo jëlee sëñ Maodo Lamine Diop Dagana ak yu ni mel da ngay gis jësaawu sakkoor tey su amul woon muy jéeri jéeg jéer géej gi bari na yu baree bari yoo xam ne ni moo ci orienté ndaw ñi moo tax ñu xam ci liñ ci xam mhm. bu màggal Tuubaa jotee sax da ngay gis ne mooy doon cëslaay li nga xam ne ni moom la ñuy moom moom moom ca moom rek la ñuy tibbee mu nekk loo xam ne ni am na lu muy am na lu muy teewaat ba tey nga xam ne waroon na jaadu na kon ñu am bibliothèque boo xam ne ni ñoom seeni wax rek moo fay nekk ngir loolu di def ñuy def ay concours yoo xam ne ni dañ def ci wolof waaye di ko def ci taalif su ko defee taalif bi dana tax luñ bëgg a wax mën nañ koo wax ndax xam naa ne yow ak sëñ Cheikh Abdou Ka ak sëñ sëñ Moustapha ku leen bàyyi woon léegi ak sëñ Bouba léegi jotaay bi mën ngeen cay def juróom benn bayit yoo xam ne nii eh, gisuma sëñ Afia Thioban waaye bu fi nekkoon ba léegi def na bayit yi kon ñu bàyyiwaat la kàddu gi mel ni tey sëñ Mor Kayre am na ku laaj léegi sax ni cosaanam mm-hmm. soxla nañ ko mm-hmm. ndax nekk na jëmm joo xam ne nii ñi ngi koy dégg ci nopp waaye bi ci tënk rek nga ubbaluñ ci benn bunt bu ndaw door ñoo ñëwal nag dëgg dëgg dëgg ci ay waxinam ok eh, sëñ Mor Kayre cosaanam moom mm-hmm. eh, bawal gii la kayra àll foofu la gane àdduna mm-hmm. foofu it la mm-hmm. jànge alxuraan ndax sun borom da koo dimbali juróom-ñeenti maamam yëpp yi nga xam ne fa la cosaanoo ñëpp ay jàng ak jàngale lañ leen xame moom way na ko nee na juróom-ñeenti kayar yi kat donnuñu lu dul cosaanal ji ne sant war naan daa ni cosaan bu leen ko féetale bawal fuuta ak kajoor nooy maami giir ñu nu lawal noonu la ko waxee bayit bii nga xam moom la sëñ bi doon wax léegi nii bokk na ci yi mu njëkk a def mooy bisimilaay kayre santaane jubal yoon ak di distaane murit kaay leen waxtaane lu ñuy taxam mosul seytaane daa woote ab woote bu rëy woote mooy woote mu màgg boobu noonu ginnaaw nag bu mu amee ndigalal way ndax eh, Cheikh Samb Diarra njëkk way Serigne Touba Serigne Mor Kéré moo ca topp Serigne eh, Mbay Jaxate ñëw Serigne Moussa Ka sëg ñëw li tax li firnde ji mooy sëñ Mor bi nga xamee ne jóg na di way Serigne tubaa euh, bi ko Cheikh Samba Diar déggee daa bind benn bataaxel yónnee ko kontaan ci lool waaw mu feelu ko nag jox koy béy naan ko yow taala yàlla na nga gudd fan Serigne Mor Kéré lay wax. wax naan yow taala yàlla na gudd fan siggal nga ma man ñu njëkk way Bamba ba tey waykat yëpp a ngi way. wax sëñ Mor tontu ko ni ko. ka njëkk a way bamba maa ca topp nuy wayandoo noo way fa gànnaar ga way jurbel ba ñëpp nu roy ñun ñaar la bamba ni woon seen way day xikam du wolof maag sàmba jaaral la wax lii loolu sax dafa doy kuy way ginnaaw bala way mm-hmm. moo tax ba man ku ma way waykat wu jóg di ko way du rëccu moom lu mu way mu bokkoon ca mag ña tamit ndax bi sëriñ bi dem ci géej gi bokk na ci ñim dénkoon maam Cerno Birahim mm-hmm. bi ñëwee da ko da koo jël siwaat diggante boobu sëriñ bi nekkee ci géej gi boobu jumaay Tuubaa amagul suñu borom wan na ko plan jumaay Tuubaa ni muy mel ak fi muy sampe ba mu way ko jumaa ji nag ba boroom nekkee ca géej ñu des ak Seex Cerno laa ko jisoon mu yaatu tal guddurëy peyu borom ndar la tollool fii li làmp ya doy ridoom ya daj ba ma koy gis mooy fi muy sampe tey nan gis naa leneen waaye am bàmmeelu biir dafa war bambaa nu noonu suturaal mbóot war na naa nëbbu tey gis naa leneen ji buy wax ay waxam tey boo koy jàng da nga yaakaar ne tey jii moo tax muy wax ci yàqu-yàqu jamono ndax bu ne yow mi murit bi ni bambaay goj bi tey baag bi wëggal bu baax te laxul warmaal li wër teen bi saa boo joxee sa bopp rek takka sa ndig fas yéene sëriñ bi neen ko ba jot ca euh, euh, ngërëm la ngërëm na nee mooy ndox mu neex te naxul ngërëm moom mi ko mos ba xam lam saf moo ñu koy misaal nee ngërëm mooy ndox mu neex te naxul Ciam so cham mandi du mar du xif du ñak lulul bakkar ak bekor bi yalla ngi yalla defal dan yow mi murit bi ni ni bamba moy sa serign bayil ma lamba kris kiris ak cinéma tuubi te dal di jog def jihad nafsi ak sa banex seytaane ak adunya non yaangi neel wubi xamal mujjug noonu yi lislaam lepp acam aku nakar rëcc pertement na ni tuubi lolou la jox yaq yaq jaman ji fim tollu daal ni waaye seera leen sama wax ji fil xuraan yi la ne ca gaa ña xam waxumaa réer a xam-xam bi daal ni moytul ma roy dàq fuñ ko dàq dàq la fa royal lu baax ak ku baax nga làq yow yool bi dañ la bul wat sikkim ba mu set na yooru taayu tey am lii mooy melow gaaña xam tey jëfe xam-xam bi <laughs> waaw waaw <laughs> waaw macha allah boobu baax na boobu na waaw <laughs> daani ku faalewul ndigalal wàlli yu kooku du mat imaam ci diine borom jaam ñi kay buur bi daani saa yoo gisee sama way man kay re bul werante jël ko te way ngir man du wuteeg hadiis ak téere borom bi ci yooyu yaar laa di ngooy ak waxi Seex Bàmba yàlla nañu ko yàlla fayal kay xëyri wahaabi kon koo xam ne waxam génn wax hadiis génnu Alxuraan génnu xasida yi sëñ bi wax ëpp na ko njëriñ mu defal ñu ko ci làkk wolof mu ñëw jox sëriñ si seen wàll mm-hmm. sëriñ yi tey sax laay lu koo dëxëñ ni boo donnatul mbir ma mbir mbir mooy li nekk ci sëriñ ba mën a àggale nit ki ci boroomam loolu nag waajur wu jigéen bu baax dala koy faggul nga judduwaale ko bu dul loolu da ngaa war a takk sa ndigg dem liggéeyal sa sëriñ ba mu gërëm la nga am ko bu dul loolu da ngaa war a làmb sa poos dem fekk góor yàlla bu baax nga seral xolam guy mu am lum la jox teg la ci yoon wa orienté la ba nga jot ca soog di mën a boote dañ la dañ la ne boo ko doon boo doonatul mbir ma nag jéggi ko. Mhm. jéggil mbir ma fu mu fa gënee bul toog te jéggoo ko fekkoo muy cosaan fa nga ne. waaw ah, ndéem woomaloo mbay ma gàntal jéggi war na la yow. ndem am nga ndem am nga barke nag dawal xiifu njaboot fu mu ne. nee na mbir mooy jubal góor yu gàddaay seeni xeet ne fi yow ngir yàlla boo ko amul réeral réeral murid yi dama ni mhm. dajale mbooloo te jëmale woon seen borom. Mhm. nee mii mi ngi mel nga dajale ay fas yeew leen te joxo leen ñu lekk joxo leen ñu naan da leen di lor moo tax man koy gàmbe ay fas te ñàddul fas ya feq ba yooy yii dee fa yii dog nda xiif baa tar fa ñàdd ya de ne loolu dara yéesu ko de lii dara yéesu ko sàkkul mbir ba am loola doy kon say murit naat saw turu siiw ci gox yi fi ne nee na nga am barke nag barket bi nga ko amee ba pare nag nee na nga def attention ndax mën nga cee loroo barke ji bopam ah, ba nga ko amee ba noppi néna nga def ndank ndax man nga caa loro da am dangar motax tax mu am barke bu mu tax ngay def aram di ko de nan yaq wéy na te yow sag yàqu sax ci nga ne ñoy jox misal ci gor yalla fi jitu won en ah, sétal ni balham amon nak bax li lé ko bir birsis mbiram yaq ñi ñaar doyna li ma wane xam-xam bi ak barke bek magal gi mbaa du la wor mbaa mbaa du la wor la la poser question xam-xam bi ak barke beeg màggal gi mbaa la war del xante woo dem ci bàmmeel neex malaaka mu ne xam saa bu amee barke rek ngay dégg gaay naan la yow yow yow yow yow boo def attention moo bul faale ab jajukat day tax waaw jaju waaw bul faale ab jajukat day tax nga fàtte sa mbir jàppeel sa barke bi niw semmeñ wu ñuy taxane nga indi sëriñ Mor ak diggante mag ñim jamonoon li waxoon sëñ Mbay Jaxate maa ko yow Babacar teewe naa ca réewi gànnaaraa Cheikh Bamba jox la ngërëm ca suufi sarsaara loolu moo ko seedeel commercial xasida gu gudd la temps bi ko maye mu ñëw ci Cheikh Moussa bi nga xamee ni moom jëm na mag daa mel ni kuy tekki ay jaajam di tekki suuf sëñ Moussa toog toll ci diggi ndëndam mu war koo jox lengay naan ko kay ngi naan muusaa fi sut yii saa ku ko rawoon ngi naan Moussa fi sut yii rawoon lu jiitu lii dabtil Moussa ñu ko man sippi naa yaa sëf sëfal ci noo saa say waye siiw xaaya ki réew yi Moussa man man kayre mi duma ñaane ku riisa daa koy sibooru ndax mu may ma wiisa ci jamono waaye déggoo li mu wax ci li mu wax ci jumaa ji dani gis naa leneen waaye am bam waaw kay waaye wiisa ba mu waxtu ñëwagut bi mu wax naan eh, jumaa ji nag eh, ba borom nekkee ca géej ñu des ak Cheikh Thierno laa ko gisoon mu yaatu tal gudd rey bi mu naan gis naa leneen waaye am bàmmeelu biir dafa war leneen jooju ndax du wiisa boobu wala leneen moo tax mu ne gis naa leneen waaw moo tax man iya mii duma ma ko risa da koy siboru ndax mu may ma wisa mu koy wax ni ko eh, lim am ci tag eh, Serigne Touba lim ci am lim ko jural mu koy xemem lo ni ko lu man di xew wayal amna ci lepp yaxantu ci tag Bamba aïssa tagam wi def ma may ni rogra ousa tagam wi feesan la samay ko oosa ba ma ngi mandal tay samay juloosa tonay wayam wefi saxal ab sosa saxal kafe muru fegal may diisa man tagg naa sëriñ bi ay tax miisaa mu wan ma xayran naa si kay na moosaa laa yee fa haddis moom it tax di xuusaa ci yéla xii wan ndax ko sant muy xasida gu gudd goo xam da koo jagleel sëriñ sëriñ Moussa Ka waaye sëriñ Mor daal daa bokkoon ca mag ñi nga xam ne wax dëgg yàlla mm-hmm. wax dëgg yàlla ay wayam da nga ciy déggee lu bëree baree baree bëri ci xoromu euh, ci neex ci ci ci lépp waaw ndax bu nee la mu del taqoog seex bu mat tey bu xam mm-hmm. daa bëggul ngay ngay tañaxu rek ab taal bi dañ koy tànn. Mm-hmm. ab sëriñ dañ koy tànn. waaw ah, murid taxaw seex bu mat tey bu xam doy nañu déedéet bu lay laayee biir tey bu sellal jëfam. bu xam pay ba xaw soog rek jàll yee dajee. bu ràññee sari xaq xaqiiqa ak jëmmam te xam kay borom pay ba xam yonenam bileb seex daw leen ko màggal mbiram. Mm-hmm. ku dul bii sëriñ daw ko yow mi murid ndekuy réer di réeral marit mooy turam. ndekuy réer di réeral la wax marit mooy turam murid ak marit ak muraad Murad moo di cheikh bu jubam def xalam murid mooy ku gëm yàlla jox ko mbiram marit mooy ku seytaane wamat xolam na mm-hmm. ngay muslu seytaane yow kii murid te wut seex bu lay tàggaleeg ay dogam daal ni melo cheikh bi may wax du koy di moom de ñun rek ñoo ko am muy sëriñ Tuubaa bi joxañ melo cheikh bi may wax du koy di moom du foo dem nu am natto ngoom noo ko am dëgg la sunu cheikh yor fii melo cheikh bu mat bu ñuy tàggaleeg ndog yu ñu fii teeyu nu dem mm. daani jikkoo may ju baax moom du loo alal da koy jox boroomam di sàkkuy ngërëm du tëj kees yu fees ci dinaar mbaa dërëm du ëppante kee ngir tabax ay ay këram dëgg la dafay bañ ku miskin di delloo ki jooy ku ndóol dem fa moom réew mi soowu amam daani bi lépp seex a jàppe dërëm waggu suuf lu jafe ci jamono bi te sax waggu suuf faaf te neen ko dërëm nga suuf lay julee buy rukkoo te su jot dërëm def balis tax mu sox yorom sëñ Mor daal loolu lañ ci amoon dëgg la jërëjëf moom hmm. dafa gis sëñ Tuubaa ci wa bim mu nee bëreet di way mom mom mom dafa dafa namon comme ni ko am ko mbokk mi ko wax fi sank ni dafa melni man bu ngeen di wax ci seigne moussaka wala seigne Bay jaxati wala seigne mor damay japp ni benn bi la benn jëm bi mo taxaw benn bi la mo am mo am wa dani alhamdullilah ma santati borom bima xamal Bamba mi muslu am morom da sant yalla ci xam gi nga xamaleeg sëriñ julli ci yonent suma na dal yoneen ba gën moom ñooñam ak baam ya xeetam wa gën ba ma ci Màkka na moon ak Madina ak Saam ndeke Mbàkke laa jëmoon ndekete leerug Bàmba gee ma ñoddi woon may dox di pempemi ba yàllaa ma ko wan ma nga ma booleeg moom mu yee ma ciy nelaw wan ma melow yeneen ba dootuma selaw daal ni jombul bu doom xamee nga ne la maamam ndem baay ba baax na doom ja def ni jàmmam foofu daf dafay cax-caxu xóot dafa mel ni moom mooy doom ji Sëriñ mooy baay bi yonent bi salaa salaam mooy maam ji moo tax mu jombul bu doom xamee ngëneelal maamam ndem baay ba baax na doom ja def ni jaamam bu ko defee ngëneeli baay ba wan ko ngëneeli maam ja ba mu sax ci way ko dégg fi mu wax foofu mm-hmm. moom la tekkiwaat ci kanam naan baaxuk sëriñ mooy xam mooy tax a xam baaxuk rasool baaxuk sëriñ mooy tax a xam baaxuk rasool ngir xaw su mooy seetub rasool bu leen ko suul mm-hmm. comme sëñ Tuubaa mi waxoon ne mooy mooy baay mooy baaxuk sëriñ mooy sëriñ bi moo ko euh, baaxug sëriñ googu moo ko moo ko lëkkale ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ko mm-hmm. moo tamit baaxug sëriñ mooy tax a xam baaxug rasool mm-hmm. ngir xaw su mooy seetu bu rasool bu leen ko suul loolu da ci doon sant suñu borom mm-hmm. ci boole gi ko boole Xaadimu Rasuul mu delloowaat beneen xasida goo xam ne da ko def euh, delloo ko njukkal euh, Serigne Touba ci àggale gi ko àggale ci boromam lu rëy la wax foofu gërëm nañu yàlla askanu Mbàkke Baari ngir moo nu xamal boroom bi fi tudd Baari du wax ju ndaw de gërëm nu yàlla askanu mbàkke baari ngir moo nu xamal borom bi fi tudd baari ba nuy mbir a tax ma daan jooy ba wànneen mu wéet ak man bégal ma ba maa maa ngi maare dama woo jox ma mbindam moom ndejooram mu def sama mbég ginnaaw ba ca biir gànnaar yi mbindam moomee ma génn ci yooyu yëlay jooy ngir moo ma ni foofa far nañ say bàkkaar kon yàlla ñu yàlla fay far suñu bàkkaar ñun jërëjëf jërëjëf eh, Serigne Serigne Cheikh Fall Kayré eh, Baye Cheikh Balla Samb xam naa ne yaram bi tàng na jër jër jër jër fi mu ne nii eh, toogatul taxawatul ndax fi mu ne fi nga xam ne nii fala fala fala fala fala lii lu ko gën a neex amul lu ko gën a riche amul waaye ñi ngi koy sàggane moo tax ñu war a taxaw Touba TV ci gis-gisam bu yaatu war ci taxaw def ci taxawaay def ci jàngat ngir mu gën a yaatu yaakaar naa ne tey liñ ci jànge eh, nit ñaa ngi woote ñu ngi envoyé message ci suuf di di di di wax ne eh, jataay bi tubaarkàlla eh, su ko defee ñu gërëm bu baax a baax itam waa diwaan décor ni ma ko waxee woon léegi ci seen taxawaay ci télévision Touba TV ci plateau spécial yi rawatina émission bu mag bii di diwaan gis ngeen jataay bi ni mu muritee tubaarkàlla képp ko fa dem rek tubaarkàlla dana yaatu lool te dana rafet ñu gërëm leen bu baax a baax sëñ Ousmane ma bàyyi la rek nga dugal euh, sëñ Moustapha waaye balaa sëñ Moustapha euh, Diané di dugg euh, yaakaar naa ne sëñ Ibrahima Ndiaye ngay njëkk dugal mu am ay abyaat yu mu wax ci sëñ mbay Jaxate bàyyi Cheikh ngi naa ma ana ana nañ wax ci sëñ Mbaye waaye comme ci sëñ Mbaye lañ jëm balaa ñu fay yegg jaar ci bunt bi door a yegg nag ci ki nga xam mooy sëñ Bouba kon nu bàyyi sëñ Ibrahima sëñ Ousmane. ñuy jaajëfal Am Diop balaa muy jël micro bi daal ñu xam ne daal mhm. mag ñi daal ay visionnaire lañu woon ndax liñ doon wax. te tolloogut ak jamono tay ñung nyungkoi koy ñung koy dund ñung koy gis wante tamit gis nañ ne ñom dal lu bari dañ ko doon junj kon nak sëñ Ibrahima ñu la gi xala rek nga yëkkati ay bayit rek asan lu mën xew awal ndigal tayaru yaw kon do nga laq wepp yu tayab yëg ko wax rek asan lu mën xew awal ndigal tayaru yaw kon da nga làq wépp elek tey ak ëllëg maa ko wax mbollem li de fi jog di wut yara ko gën gën ko rafet mo jara dox junni bi at di wut serign bu la ko jox ku yaru rek kamata mata am ku yaru rek kamata mata xam ku yaru wul matula am matula xam turam wasakh ab yar li tax amut moroom day tax a gën fa say moroom day tax a gën fa sa boroom ku la yarut rekk la nax ku la mayoo ni junni te jàpp lab yar may la it nga gis junni yorot boroomi yar for ko te sex ku yaruwul matu la yor ku yaruwul matu la yar ku yaruwul alku nafar ku yóbbu far tàbbal ko pax ab yar yemoowul ak dara ku ko amut amut dara ku ko amit ñàkkut dara sëriñ bi na nu ko ab yar la dee fi ab yar la dee fi ab yar la dee rawe nit ne do alal ak juddoo ki jur mët la damoo ragal yàlla mata te ku ko amit du ko damoo ngir dootu gis mbaaxam nga sax ku gis boroomam dootu gis boppam te moo ne dootu gis moroomam te dootu gis dara ka wax waxi larax yëgal na yàlla ku ko xam yaru te kenn du ko xam te amul ab sëriñ da xam ku xam du weddi lii ma wax sëriñ bi yaa nu fayal taalub tawat ba mu fay budul ko noog yow lu bon am tey gërëm naa la saytaane tuuti mu bég ñun ñëpp tuuti nu rot yaatee mu bég yaanu tee rot man gërëm naa la yow dong tee ñu wëree jommi jommi di wéy di tappale kay naxee gërëm naa la ay waa gi daj këpp mboolem nit ñi teggi na nun yaa tax mu teggi nu moo tax man gërëm naa la ku ne ngi rab-rabi ngir xiif ragal ndare nun yow yaanu tee boole xiif rët gërëm naa la yow may nga nu dundakub dundit bu wér bu rafet te may nga num dox mu doy jaajëf gërëm naa la mbakke manoon nga ma baña may ak yëg te sànni ba fee te def ma faf ni ko dundul man gërëm naa la yow fam nga mboolem lu niwut tekk saa loxo yi faf def ma sab loxo man mii kay gërëm naa la man saytuwul sa njariñ man saytuwul sa lori yaa may jariñ di ma xajjal lor gërëm naa la gisoo ci man sa njariñ gisoo ci man sa lori te jublu maa ki njariñ jaajëf gërëm naa la ndaw rekk laa lu ne rappang mag di mag ma mag caña mag mu fa ma teg ma ciy mbaggam may wax ak ca kaw ku gàtt laa ku ñu fab jébbal ka sut ca ñu sut mu fab ma senn ci waggam may wax ak ca kaw sëriñ bi ubbil te tijjil te baddil ubbi alli afal bunti njëriñ yëpp biir ak bitti fekk nattu yi mbàkke ubal tëjal madd saañal mag sak damaj ku lor di aw jëm ci ñun bay jabb tookalayu yal nay njëriñ naa jalañ ndam yëpp naa rututut nag jàmm naa xëtëtët ay wépp dëkk ci gi jërëjëf jërëjëf sëñ a Ndiaye <laughs> kon euh, ñu ngi lay jaajëfal bu wér tabarkalla xanaa rek di jaajëfal Cheikh Balla Samb ndax nag euh, mu ngi dem rek euh, ci biir studio bi ba tamit di lijjanti loolu dafay wane rek taxawaay bi ak ñoom Ndeye Ndiaye Badiane ak ñoom Mbacke Mbocc kon ñu ngi leen di sant bu baax ak waa diwaan tamit duñu leen fàtte waaw ñu di sant bu baax a baax baax kon nag sëñ Ibrahima Ndiaye wax baat yoo xam ne nii leer na mën a tey soo ko dugaloon ci dëkk bi laaj ko mm. ay xale yu bëri. Mm. du ñu xam lenn ci li mu wax. damaj xam naa loolu sëñ Cheikh Abdou Ka dina ci ñëw léegi waaw waaw tubaarkàl am na baat yoo xam ne xam naa ne war nañ ko war nañ koy def question sëñ Abdoulaye Diop di ko di ko di ko di ko di di ko ci caa sàcc euh, di wax ne rek euh, mbokki téléspectateurs yi euh, ni ñaa ngi woote fu ne ñu ngi gërëm bu baax a baax Serigne Baye Djili mbakke borom léegi léegi ma nga ca Touba di topp li nga xam ne ni mooy jataay bi di ziare Serigne Cheikh Corom Mbacke ak Serigne Galas Mbacke Euh, soxna Awa Dia foofe nga foofee ca Xuru Mbàkke euh, di topp jataay bi tubaarkàlla di ko rafetlu euh, sëñ Mamadou Niang xasaay door ma nga ca Bambey waaye nee na mook mboolem donga yi ne foofu ca université ma ñu ngi topp jataay bi di ci jël bu baax a baax ay bind ñu ni ko siyaare baax a baax di siyaare Serigne moor Sis Dieye Eh, xam ngeen ko ci eh, yëkkati jàng xasaayit rawatina ci eh, taalifi sëñ Cheikh Samba Diarra mbay yaakaar naa ne Baye Moussa sax ngiree xam naa ne miin na ko tubaarkàlla ñu ziare ko bu baax a baax wax na jataay biit mun nañ koo topp ci Facebook bi waaye mën nañ ko topp itam ci application Touba TV mm-hmm. eh, ni ñu ko waxee woon rek eh, képp koo xam ne ni téléchargé nga application bi di ko mën a topp eh, kilifa yi nga xam ñi ngi war ci suuf itam ñi ngi laajte ay am nay baat yu may laaj xam naa yooyu moom <laughs> damay bàyyi bu sëñ Cheikh Abdou ñëwee rek daal di cay dugg ndax am na ay wolofal yu laaj yoo xam ne ni sàkkoon nañ ku leen ci tekkil tuuti ci eh, sëñ Moussa eh, sëñ eh, usmaan dañuy mhm. ñëw ci sëñ Bouba ma bàyyi la nga nga nga dugal ko sëñ Moustapha ci sëñ Mbaye Jaxate yaakaar naa ne foofu la ñu toll kon nag sëñ Moustapha Diané xam naa ne dañu lay joxaat kaddu gi mhm. bu ko defee li nga xam ne ni sëñ Ibrahima Ndiaye jàng na ko yëkkati na ko ci ay baat mhm. ni ko Cheikh mbay Jaxate doon indee wante tamit taxawaayam ak ni ñu ko waxee léegi donte bokkuñu jamono wante dafa mel ne ñoom ñëpp rek liggéey bi benn la woon mhm. te kenn ku nekk amoon na sax taxawaay bu fés wante nag nga ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo mhm. alhamdulilah euh, mu mel ni kon euh, jotaay bi euh, ni ko sëñ bu waxee rek dafa mel ni boo tegee kenn day mel ni day day day day day keneen koo tegaat tam day mel ni moom nga indiwaat rek kon dafa mel ni ñoom ñëpp rek sëñ Tuubaa la ñuy wane mel ni géejug sëñ Tuubaa la goo xam ne maanaam euh, ku ci kus bu sëmboo ba ba bu bu génnee rek ndox rek lay mën a lay mën a tooy kon noonu noonu noonu lañ gisee waxtaan wi waaye sant nañ ci bu baax ndax xamee nañ ci euh, luñ xamutoon déggi nañ ko luñ déggutoon kon euh, loolu ak cant la bu baax a baax ak ni mu ko waxee sëñ Mbay moom ni ko sëñ bi waxee léegi moom ab soñeekat la woon ab yeetekat la woon ab yarkat la woon waaye tamit tàggkatub sëñ Tuubaa la woon maanaam nga xam ne moom ni ko sëñ bu waxee léegi Euh, maanaam sëñ sëñ sëñ Ibrahima Ndiaye ñu ngi koy siyaar bu baax euh, maanaam ni mu euh, ni mu fi mu tegoon sëñ Tuubaa maanaam suñu bay bu buy wax ci tawhid da ngay jàpp ni gëmul kenn dana weesul ma képp ak lu nekk ak fépp dëgg te wut ka bind képp ak la nekk ak fépp doo waru kon weesul ma képp ak lu nekk ak fépp dëgg te bind képp ak nekk ak fépp doo waru kon mm-hmm. xamal ne képp ak lu nekk ak fépp mbind la kat te mbind nag loo ko naw naw naw te bind ko gën kooku xam da jàpp ne kon moom amatul kenn kum teg kanam diggante ak boroom ay dégg li ci teg ku dégg wax ji te def nag kum xelam matagul day wax ne kii weesu na ab sangam te kon dana fen yàllaa di ab sang sangay yàlla baaga di goj te yoona dib dëkk booful ñàkk xam aka bon kon noonu la ko toppee muy muy wolofal xaw a gudd mm-hmm. kon nga xam ne da ngay xool buy wax ci tawxiid da ngay jàpp moom day da lay wan yàlla kese waaye buy wax ci sëñ Tuubaa dangay jàpp ne moom sëñ Tuubaa def muy boroom mm-hmm. ne ko def naa la ngay sama boroom mm-hmm. duma la def sama moroom xam naa ne doo sama boroom yaa ngi ca kaw maa ngi ci suuf loolu wax sëñ Tuubaa nga xam ne ko yaa ngi ci kaw maa ngi ci suuf kon nga xam ne maanaam eh, fu mu tegoon sëñ Tuubaa kenn moom tubarkàlla mu nekkoon koo xam ne tamit ni mu ko waxee ab ab ab jàngalekat la woon ab yeetekat la woon ab yarkat la woon muy wax ci wàllu doylu waaw nit rawatina ci suñu jamono jii nga xam ne lu mat a bàyyi xel la mm-hmm. mu ne ndaxam gaa yi koo xam ne bàmmee la koy xaloo mujje sennus cagar doy na ko ndaxam gaa yi koo xam ne bàmmee la koy xaloo mujje sennus cagar doy na ko mm-hmm. bu doon dunde am ñax di tëddi korong mu doy sëkk lii yàlla it xam na ko faral dëgg doyloo xarit lii nga am da ngay doylu doo doyle lii dégg ko nit dangay ngay doylu rek waaye doy doy doy la moom kenn du ko def adduna kenn du fi am lu doy loo fi am da nga ko doyloo mhm. ña am junni ak ña am tànk yem ku ne ngay tawat te wutub dolliku li nga am mhm. li mu néew néew ka la ëpple moo la gën a bari soxla mhm. kon àdduna doylu rek moo fi am solo li sëñ bi doon wax léegi ci yar waxaat na fa ne mu yar lu ko yitteeloon la walu yar baatub mhm. luku lu ko yitteeloon la manam wa wax wala ba jeex waye wam bam jeex awal ab xasida jeex te wu ci yar mune ne tee ngeen a tuubi te sakku bi yar mu len leen mucc ak njariñ yarokoy yarokoy may nit murid yarul len tee tuubi te sakku bi yar mu dimbali leen mucc ak njariñ yarokoy may nit murid yarul len lo man di jagn ñak ab yar rek te mu ne mes loo man di ñoddi yara yaroo koy andi soppiku leen nen lépp looy ragal rek nee na ñàkkub yar dong moo tee mu ne mes lépp looy ragal ci àdduna boo yaru woon rek dootoo ko gis dootoo ko gis waaye nee na lépp looy ñoddi it boo yaru woon mu ne jariñ kon loolu lu xel la wax ci àdduna mu ne boofun ma àddina ak gaayam yu sànk yi ak këram yu bon yi fasoo xëy benn bis ne moñox kër yaa ngi jag fees ak yi dab nit ñi bég te du tee kër yëpp tas nit ñi dee dab yëpp toj na rajax àddina maa raw ñi lay wut ñëpp waaye du tee ma xam ne yaa bon ba dee yaa xëpp jëm ak wax am nattu rek nga yow duniyaa waa ju la xam day deñ ci yow mii ba dootul wax ba tudd la sax muy walafal bu gudd gudd wax ne ci àdduna la koy wax muy wax ci murit murit bu nekkul fa sangam bay liggéeyee ka daw demul àllarba joxeetul lëf ko xam lu mu don murit bu nekkul fa sangam bay legge ya ka daw demul àllarba joxeetul lëf ko xam lu mu don manam murit mom bu defu ci yii benn lu mu don mune xawma xaw lati xawma sadikhina na bu bon seytaane amna ci mom seytaane amna ci mom mom buntu faw aku yoon seytaane ci mom buntu faw aku yoon seytaane yàqal ñep ko meuna gis ca yees ndigal samu daa faw nee na ko juun lislaam a ngi jooye kay ñaxtoo ko ñaxtoo ko wax lu ne ndax xalam wi kenn awatul xalam wi yàlla na nu miin lislaam a ngi jooye ñaxtoo ko wax lu ndax xalam wi kenn xawatul xalam wi yàlla na nu miin xalam wi yàlla dundal dundalit sunu xol nu dund dundal ko biir ak biti faj lu nu buun kon loolu muy lu muy wax ci euh, ci ci maanaam ci di ak murit ba tey muy wax ci tawhid mu ne man sant na ba yalla de kuy kuy dund faw te du de ñak gi ñak ñak gi yalla ñaka de te gën ku ne dal sama xel mo ja ku dul de jee la du de te gën ñu dund gën ñe de jox nak ñu dund jox ñe de luy te xelum laram badal, man sama xel dal na rëtiix ngir dañu ma defal lu neex te dig nak lepp lu neex mm-hmm. top ci man dima ma lolou nak julit bu nekk ko am jullit bu nekk yàlla defal na la lu neex digal na la lu neex topp ci yow di la bégal defal li lu neex dara jiituwu ji mooy def def gim la def ab jullit ba noppee nga nangu ko ab xol ngëm nekk ci borom xam ne ngëm ne yàlla dara dàqu ko leneen lu ca topp da caa topp waaye loolu mooy li gën a neex waaw dig la lu neex jullit bu nekk yàlla digg na ko àjjana dara dàqut gis àjjana ak gis suñ borom subhanahu wa taala dig jullit bu nekk rek yàlla dig na la soo defee foo jaaree fi mën a jaarloo soo ëllëgee fii ngay dugg top ci yow dina la bigal mooy looy def rek gis résultat bi mhm. lepp lu yalla yi digle bo défé boko défé da nga gis résultat bi fa sasé mhm. ben muy lo tek sa bët wala muy lo yek ci sa xol mhm. waye ndigali suñu borom yi sa boko défé ba nopi rek di nga yek résultat bi mom ben dang ci tek sa bët mba nga yek ko ci sa xol kon lolu jullit ñepp ko am motax mu ne sama xel lan retix ngir dañu ma defal lu neex te digma nak lepp lu neex top ci man di ma bégal as mbuur ak yëfam yu nara and ki bu nara and ak dagam jëm sawara yi reccu moyam ñu di ñu di yedd ak mbugal ñewuma as mbur ak yefam su nara and ak yefam su and su nara and ak dagam jëm sawara yi reccu moyam ñu di ko yedd ak mbugal mhm. ki kay ko xamni ab sangama mom lu dee fi moom ak kako mom waru la ñee kenn ti mom ñeetaane moy na ko asal mhm. ab ko kui kuy sangam moy suñu borom subhanahu wa taala ko xam nak yalla nga yaakar yalla mom lepp ne koy ñeeti ak lu ak loo koy ñeeti muy wax ci seigne touba moy ni wax legi def la la man sama borom duma la def sama morom xamna ne do sama bor sama morom ya nga ci kaw ma nga fi suuf man nanguna dotuma bañ dotuma def def lu sëriñ yërëm ma sanni mas njariñ mënuma def ma nga fi suuf batay tey muy wax seigne touba nako ko ci lay bi lañu xoss yow ci waami yi nga xoss ak dëgg yow rek ca xuus ñëpp ngi yem fi pegg bi waaw sëñ Tuubaa ne ko yow ak dëgg yow rek ca xuus waaw ñëpp ngi yem fi pegg bi waaw dëgg moom bu doon géej gaa yi ko ñëw ci bunt bi rek ngay taxaw waaw ñene sëñ Tuubaa yow rek yaa ko xuus mm. sëriñ bi wàcce nga mu ne ko sëriñ bi wàcce ngay sëriñ yoo xam ne nii bépp sëriñ bu ci ne nay sëriñ yaa di ndamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi wàcce ngay sëriñ yoo xam ne boo xam yoo xam ne bépp sëriñ mm-hmm. yoo xam ne yi bépp sëriñ bu ci ne mm-hmm. wàcce nay sëriñ mm-hmm. yaa di ndamal yonent bi kon muy muy euh, wax yu way yu bari yoo xam ne euh, maanaam euh, ba tey ci yeete dëgg la mu ne xastee fi xew ci jamono mel day day wax jamono ji jamono ji ñu toll waaw xastee fi xew ak i fen kuy mer di wax sa xëyib buy bëgg ci yow di la wax loo xam ne lii gëmu ko ngay wax ji xastee fi xew ak i fen kuy mer di wax sa xëy koo xam ne bu meree wax lu lu ñaaw mm-hmm. su bëggee it wax lu rafet loo xam ne gëmu ko rek kon daanaka nit ñi yëpp ñoo noonu la ñu ci wàllu woowu mm-hmm. mu ne kuy bëgg ci yow ne la yaa gën ñëpp saa su meree ci yow ne ñëpp la gën wax say ba wane ko mm-hmm. jërëjëf doo daw ba raw ci marum nit mbaa nga jot mébétam moo tax defal la nga man yow la mënul bàyyi ko kon nit ñi jëruñoo topp. dëgg la jërëjëf euh, Moustapha Diallo waaw Moustapha Moustapha ñu ngi lay euh, sant bu gërëm bu wér ndax nag euh, li nga fi yëkkati ay bayit yoo xam ne nii mu ngi jóge Cheikh mbay Jaxate loolu lu lu lu lu rafet la dañuy dugalaale di mm, noonu rek ki nga xam ne nii moom mooy Bouba Thioune Bouba Thioune moom tamit moom mooy wax ci Cheikh Samba Diarra Mbaye niñ ko waxee léegi rek mag ñi ñoom daanaka seen gis-gis sorewul te moom tamit Cheikh Samba Diarra Mbaye mu amoon ci taxawaay bu wér boo xam ne nii euh, tey euh, mun nañ ci euh, teg loxo ñu gis ne ay visionnaire la ñu woon léegi rek sëñ Moustapha wax na ko tey jamono ji nga xam ne nii violence bi ak li nga xam ne mooy xeex yeeg waxante lu dul dëgg ak lépp li nga xam ne moom mooy moom moom la moom lañ tollool mag ñi ak mel ni Cheikh Samba Diarra Mbaye tey lan nga ci mën a dolli. waaw li ma si mën a dolli rek moo di ni comme ni ñu ko waxee ñoom. ñoom euh, si seen way dañ doon yaraate waaw moom nag euh, ni ko sëñ Moustapha Diop Bichir waxee léegi li ci ëpp si li mu def mooy dafa yee nit ñi si sëñ Touba waaw li ci ëpp mooy dafa leen woo si sëñ Touba euh, maanaam wax leen ni daal kii fi nekk di sëñ Touba bokkul ak ñeneen ñi mm-hmm. waaw boo demee si xasida bu ñuy wax Jazbul Mansub mi mi ngi fa naan na sant yàlla mi may xut bu mu mat mu di ma may di fay ay di daqi mooy ci leeri mbóoti ragalam naan di ma gisal lu ma gisul di ma yëgal lu ma yëgul di ma xamal lu ma xamul ci duusi géej yi xam-xamam di ma amal lu ma amul xam nga si wàllu poésie yooyu dafa am solo xam nga di ma amal lu ma amul ah di amal xam nga wax yi day dend mee du bokk mm-hmm. di ma amal lu ma amul mooy comme di ma tàyyi di ma tayal mm-hmm. donc naan di ma amal lu ma amul ci du si géej xam-xamam euh, di ma digal di ma tàmmal nangoo yemoo ki ndigalam di ma yërëm di ma tefal di ma jariñ di ma teral def ma mel ni ku ñu fal ku tàbbi pays dégg nga de du ma dugal fu may musal euh, di ma fegal lu ma ragal ku jëm ci man ak i fetal mu boolee diggali walam mooy comme li sëñ bi waxoon sànq rek maanaam lépp loo xam ni moom daan na ko da koy kalame Sëñ Tuubaa moom Sëñ Tuubaa la jàppale la am euh,